Bonjour, euh, je m'appelle M. Badian Simon Lazare, euh, représentant de Santé en entreprise ici au Sénégal. Et donc, euh, je voulais, à la fin, à la clôture justement de cette caravane, remercier tous les partenaires, principalement Sanofi, la fondation qui nous a soutenus et nous a permis de réaliser cette caravane, mais le ministère aussi euh, de la Santé qui était toujours avec nous. Remercier aussi la plateforme Rawalak Diam, qui est notre partenaire de terrain, qui a été excellent, qui a fait un excellent boulot sur le terrain. Et remercier tous nos partenaires MSI qui nous ont appuyés fortement par rapport euh, à la visite pour les femmes, qui a été notre partenaire de terrain aussi jusqu'à ce moment-ci. Si on a un succès, c'est parce que vraiment tout le monde il a mis la main et tout le monde a donné du mieux de lui-même pour que nous en arrivions à ce résultat. Je crois que les populations ont été satisfaites et qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une première expérience, mais ça a été une expérience réussie. En ce jour surtout de la journée du diabète, euh, nous espérons que tous les enseignements qui ont été tirés vont aider les gens à avoir aussi une euh, meilleure hygiène de vie, hein, pour éviter ces maladies sournoises qui peuvent être très fatales à, euh, à notre santé. Elle a été vraiment brave euh, et merci à tout le monde. Ce caravane juróom benn fan chaque jour ñu yeewu dem dem ci benn gox fekk ay nit ñu bari yaakaar di ñu xaar suñu yàlla mayee ba ñu yegg ci bés bu mujj bi dañ koy sante suñu borom te li ñu fi tax a jóg du lenn lu dul jaamu yàlla du lenn du dul def suñu rôle du lenn lu ñu assurer suñu responsabilité ndax ñi fi nekk ñëpp ñi ah, booloo yëpp teg toog sous l'égide du ministère de la santé nga xam ne am responsabilité wu santé des populations moo tax lépp looy def danga ko ciy boole ndax moom rôle mooy définir ay stratégie ne fii laa jëm si képp ku may jàppale na nga jaar fi ma joxe ñu ànd ko moo ñu tax a jóg donc sous l'égide de la direction de la santé de la mère et de l'enfant ndax suñu caravane bi dañ ko tànn nag jagleel ko jigéen ñi hein, surtout jigéen yi nga xam ne dañ toll ci sëy war am doom ak jigéen wérul yi jot nañ wérul jigéen bi wérul yu bari parce que li taxone ñu jog moy pour lutter contre la mortalité maternelle li li dee ci jigéen suñu ëmbé wala buñuy wala buñuy wëssé nak yoy dafa dafa bari ba nga xamante bo sayto yenen maladie yi wër lool yëpp daf koy amal jëriñ hein ah. looloo tax ñu lonkaloo ñun ñëpp euh def dépistage prévention juróom-ñaari maladie la ñu hein ah. mënon nañ na période Covid la mais dañ né malgré Covid bi Covid bi rek du fièvre te loolu wax deug yalla ñepp dañu dañu kontaan ñi ñuy dem fekk dañ na ndax yalla nit ñi ñew saytu suñu yenen febar ndax boobu ba léegi Covid ba ñëmé wuñu dem ci ci structure de santé ñu def ko nak ni mu gëna rafété rafetee respecté règle yi ndax ministère dafa insisté won ci loolu ñun ñëpp nga gis ñëpp dañu sol sen ay masque ku ci solu masque ñu may la masque ñu doxal affaire yi ni mu démé ni mu wara démé donc ñu daal di saytu euh, sida saytu paludisme saytu hypertension saytu saytu. Euh, hépatite B ak C say saytu ndax amoo anémie saytu diabète mais saytu tamit lépp luy cancer du col ndax loo ci gën a jóg rek ñu mu gën a yomb ci ki ngay ngay ngay faj donc vraiment muy mobilisation bu am doole ñu wax coalition une forte coalition li tax forte coalition ñëpp booloo ku ci nekk gis ci sa bopp muy ñun muy waa ministère d'abord muy santé en entreprise bi ko organiser muy fondation Sanofi mi ci def euh, dooleem muy région médicale de de de Saint-Louis bi nga xamantene moy suñu njaati gi ndax Saint-Louis lañu nek té te wax dëgg Yalla ñom ñu dem ci ba jeex hein muy kilifa gi di docteur Seynabou Ndiaye mais aussi muy Abdourahmane Touré mi nga xamné mom moy gérer tout ce qui est promotion de la santé ici mu dem ci ba jeex taxawul ci ben yoon dama xamné dama insister parce que sawarté bobu nit ci am moy tax leuf di réussir Lo luñ la sas te muy sa responsabilité boko défé ak xol li nga ci am mooy raw te loolu chance boobu la ñu am ñi ñëw ñëpp tey muy santé en entreprise ñett la ñu andi waa Marie Stop dañu ñëw andi équipe bu am maanaa boo xamante ne ñoom ñooy seet jigéen ñi di waxtaan ak ñoom ci planning familial ak yooyu muy waay techno euh, Suisse Pharma technologie service ku ci nekk daal àndaale nga sa askanu yéene ñu bokk te li ñu tax a jóg du lenn du dul euh, wérgu yaramu euh, askan. li ministère de la santé def tamit dafa am solo ci ñun parce que sa tutelle bu présent rek day joxe beneen gëdd.

caravane bi nag dañ ko def pour population juroom juróom benn fan ngi nii bis bu ne ñu dem ci benn gox def nañu raw def nañu jàmmagën def nañu goxu mbaaj def nañu pikin def nañu get ndar ñu ñëw Marigu euh, li doon def nag mooy di jàppale population bi pour ñu saytu seen yaram Si diabète si hypertension si hépatite si paludisme si tuberculose mais également si cancer col de l'utérus Le LEP, buñ ko buñ ko ak sensibilisation bi nga xamni def nañ ko depuis avant caravane bi di commencer caravane bi Bataille, di def sensibilisation pour di ñaax nit ñi di leen mon li nga xamni mom lañu wara def pour mëna a moytu yenn yenn yenn yenn sibiru yi yenn yenn euh, di remercier organisateurs di remercier le gouverneur de région remercier l'équipe cadre de région njiitam di de médecin chef de région di remercier suñu partenaire, Rawal ak euh, remercier euh, Artemidis di remercier santé en entreprise Sanofi Sanofi Espoir fondation Sanofi Espoir di remercier MSI Sus Pharma Technologie Service di remercier PNT di remercier le SNEPS di remercier le CNLS Nous ñëpp ñu leen

dañu war a li ñuy def lépp pour que bu 2030 bu ñu tasoog suñu naataangoo yi suñu naataangoo yi nga xam ne ñun ñëpp si àdduna bi ku nekk da nga jël objectif ñu ni Sénégal lii la jëloon Sénégal egg na ca loolu nag gouvernement rek mënu ko moo tax ñuy remercier suñu partenaires privés yi nga xam ni ñu ngi ñëw di jàppale gouvernement si politique am si ay stratégies yu mu yu mu yu mu tëral pour comme ni ma ko waxee euh, euh, lépp li ñuy def pour wér-gu-yaramu yaay yi wér-gu-yaramu doom yi ak population manière générale tey nag journée diabète la techniciens yi revenir nañ si ñuy ñaax nit ñi ñuy ñaax nit ñi ñu gën a am euh, taxawaay si li ñuy lekk si comme tra dégg naa sànq mu koy wax di moytu xorom di moytu suukar bu bari di di di dox di def activité physique ba pare maam-man yi ñu moytu ko lii mooy faj jabet démb dégg naa ko ko doon wax boo jëlee di tax day faj yooyu yëpp du faj jabet boo ko amee da ngay dem si kër docteur parce que loolu moo tax mu nekk fi pour ñu faj la mais ñu bayyi di def automédication jël yenn yi dal di wax li moy fa diabète ma man yi di leen ko jox ni koy jël daf leen di sax lor parce que aliment yi bari ci ya, ya, bari suukar dañu bari du rek lu sax suukar mo am suukar waaw suukar bi nga xamni moy lor dafa nek ci aliment yi bari donc dañuy moytu yoyu donc euh, lool lañ amon amoon luñ ciy wax di déclarer parce que comme dañu jëf juroom benn fan tay la affaire bi jeex ñuy déclarer ni tay lañuy ñuy euh, caravane bi nga xamni mom lañ doon def di ñaan yàlla déwén ñu jàppalewaat ñu ñu incha allah ñu dem si yeneen i gox defaat ko pour yeneen population yi nga xam ne ñoo nekk foofu ñu ngi leen sant leen gërëm merci beaucoup.